tudde sakti diane ba maa ngi présentant chef du village de Bonobo bañu sanc dëkk bi mooy à 1932 góor googu tey moo fi des mooy Amadine Ba ñu di koy wax maam naa man nag maay doomam maa ko présenté fii tey waaw tey ji lan moo sabab ngeen dajaloo fii tey ji tey li tax li ñu sabab ku ñu daje fi tey ah yàlla dafa def dafa am ku ñu wax Amath Wade moo jóge ñàgg wolof diggante ñàgg wolof ñàgg pol mu ngi ci diggante bi mu jog ñëw ba ci kaw montagne bi indi ay presse wane na fii ñàgg wolof ñoo ko moom mu am lu mu fi wax ma ñëw fekk ko fa ma ne ko yow looy wut fii mu ne ma ñàgg pël ñàgg wolof ak bënn ba benn dëkk la ma ne ko du dégg nag li ko waral yëw da nga jóge ñàgg man en tant que représentant du village maa fi nekkal dëkk bi nga jóge bi ñëw ba fii ci sama kaw village nga di waaye indi ay presse ngay wax te man fekke wu ma laajoo ma ñëwoo man yëguma ko loolu moo ma indi mu ne ma bu fekkee loolu nga wax jógal foofu ma boo ma xam ba ma bëgg a doon en tant que mu ne ma yow simple délégué quartier ga rek ma ne ko waa baax na su may wax ak moom ma seen ndeke moom mu ay kale yi ma jóge jéggi ñàgg ba fii ñu ngi commencé di xeex ak samay doom ah ci la am lu ma métti ma déplace fii dem ba ñàgg ci kilifay ñàgg yëpp ma toog ak ñoom ma wax leen ko man leen am naa lu ma mit ndax diggante ñàgg ak bënn ba dara mosu fekkew diggi 1930 ba de ba léegi mag ñi muy fekkoon ba léegi dara mosul kew suñu diggante ak ñàgg kon nag lii bu amee ñun ba bënn ba dañuy jóg dindi loolu ba mu set wecc wane ne fii tund bënn ba moo fii li jóge fale ba fii ba ci dëkkam fi mu yem lépp bënn ba moo ko que euh, projet bi fi nar am waaw projet bi fi nar am ñun projet boobu balaa ñu see wax dara il faut ñu toog ak kii war a def projet bi waaye dañu gisul ki nga xam ne moo war a def projet bi li ñu fi gis mooy calendrier yi ñëw rek di coow fii ci kaw tund bi te kenn mësuma fi yëgal kenn mësuma fi wax dara moo ma déplacé loo tey ma woo samay askan yëpp ñu ñëw toog fii dindi loolu yëpp ba mu set wecc képp ku fi joge foo mënti jógee nag balaa nga fi def dara di nga wax ak waa dëkk bi toog ak ñoom. ñu xam lan ngay dox. ak lan ngay dox kon fii ci Bonobo la bokk. waaw fii ci Bonobo la fii ci Bonobo la bokk. te fii ñu taxaw nii fii boo fi gëstoo nii ñun fii la ñu dikkoon ñu jógewaat fa demaat fii suuf kii kii fi nga xam ne foofu la kii. siriw bi nekk ñun foofu la ñu jóge à 74 la ñu fa jóge wàcc fi ngeen fii ñu fekk noonu ñu nekk à 74 la ñu fa dikk. maam Assane Ba dëkk ba Naba nekk rakk chef nekk doomu chef village di rakk kii di wax li ma ci wax moom euh, du du du bari nag seex wax na lépp mais fi ma juddee biir filaaw bi même pas 600 mètres mën laa nekkoon léegi foofu laa juddoo waa ñàgg juddoo naa ba toll fi ma toll gisuma benn doomu aadama ma a ñëw ñàgg dal fi ci waa bu Naba mosul am mosuma ko dégg kon lii may wax waa ñàgg ñoo gën a tax ma koy wax man imaam Assane yéen waa ñàgg lay waxal li am maat wat def fii laa bëgg ngeen tëggi ko ñu tëggi ko ndax lu dul loolu safara bu tàkk lay doon ndax am maat wat andi na ay xale fekkee samay doom joteeg ñoom sama doom bokk na ci te nit nag doomam la ku laal sama doom nga laal ma ma bëgg yéen waa mag mag ñàgg yi am maat wat bu fekkente ne alal ma alal lay ut bu ma ko ut ci waa am na fu ma ko mën a uti li seeg seeg ak nag 1932 la ñu ko sànc ba léegi amul benn mag bu ma sañee fii ut moomeel am maat wadd ànd ak jomaay ànd ak sama doom mi ñuy campagne bërki démb jomaay gaañ ma ñëwee fi mu ne suufam la loolu mooy takk nakk yi de wax nag nañu bay suuf bu napp suñu ngeen ko léegi ndax di ngeen nangu kenn jël ko ah loolu du yomb ndax ku ko bëgg a jël tey boo ko fekkiwul doo ko jël ñun duñu xeeki jet duñu xeeki jaasi duñu xuloo du muy xeex waaye yàlla lañu àndal sama biir néeg nag ma ànd ak yàlla toog fa mën ma ko te mais projet bi nga xam ne aussi tamit moom lañ fi namm def ni est-ce que yéen waa village yu Bonobo ànd ngeen ci projet boobu wala déet bu fekkee baax la mm-hmm. projet baax la te mën a ma ko mm-hmm. te mu mën a defal askan lu koy jëriñ dañ ci ànd waaye ànd guñ ci nag gisuñu ko

pour laquelle je vais vous lire le discours qu'a présenté nos aînés. Considérant que Bonoba est un village à part entière, considérant que Bonoba existe depuis 1932, considérant que les limites des villages ont été clairement délimitées depuis le Coran, considérant que le village de Bonobo est limitrophe avec le village de Niagpel, considérant que le nommé Amatouad réclame des terres qui, selon lui, appartiennent au village de Niag, Considérant que est venu dans le village avec son groupe, considérant qu'Amadou a blessé un jeune au village de Bonoba, considérant qu'Amadou et Bonobo ont été toujours des villages amis, pour tous ces motifs, la population du village de Bonobo demande à Amadou d'arrêter immédiatement ses agissements et de ne plus mettre le les dans le village. La population de Bonaba met en garde Kamadouad et son groupe la population de Bonobo debout fera face à toute personne ou groupe de personnes mal intentionnées. La population de Bonobo utilisera tous les moyens dont elle dispose pour sa souveraineté. La population de Bonobo exige à tout investisseur et à tout bailleur de discuter avec les personnes résidant avant l'installation de quelconque projet. Pour terminer, la population de Bonobo réaffirme son amitié avec le village de Niague et tous les villages environnants. Nous ne disons pas que nous sommes d'accord ou pas, nous ne sommes pas d'accord. Mais ce que nous demandons d'abord, quiconque est bailleur ou investisseur veut faire quelque chose dans ce village, que vienne parler avec la population, discuter jusqu'à qu'on puisse trouver un consensus. Nous, nous appelez comment Dembegei. alors vous revenez un peu sur ce problème que justement les populations de Bonhomme bon en tant que jeunes, nous vivons un problème très catastrophe avec le village de Niaga mais nous nous sommes là pour alerter non seulement le village de Niaga mais tous les villages environnants que nous la jeunesse de Bonobo on n'accepte pas et on n'acceptera jamais qu'un de nos voisins se vient ici pour bon, décréter quoi que ce soit dans nos terres Ici, c'est l'espace foncière de Bonobo. Et ça restera à Bonobo. Et pour rien d'autre. Bon, on ne parle pas de projet, c'est important ou c'est pas important. Ce qui est important, là où nous sommes, là maintenant, et ce qu'on revendique, là où nous sommes, c'est que ces terres, ça fait partie de l'assiette foncière de Bonobo. Nul n'a le droit de venir ici sans avertir les villageois de Bonobo, sans parler avec les villageois. Quiconque, que ce soit l'État, que ce soit les villages environnants, que ce soit un bailleur pour mettre son projet dans nos édifices euh, euh, euh, foncières. C'est ça que nous venons ici pour réclamer, pour mettre en garde les villages environnants. Je ne parle pas de Amadouade et tout. S'ils ont leur guerre politique, ils n'ont qu'à attendre les campagnes électorales. Ils n'ont qu'à attendre les campagnes électorales pour revendiquer leur cause. S'ils ont des problèmes avec le maire, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à le gérer ailleurs, mais pas ici sur notre terre. Ça, on l'avertit et on le dit en haut et fort. Bon, qui que ce soit, franchira nos terres, nous verra face. Inch'Allah.

muy bayeur muy dëkkandoo buñu dekkal nga ñew ci sunuy suuf naan da nga fi am loy dogal fi lu fi way di dogal na ñew gisee ak waa dëkk bi wax ak ñom bëss niki tay nak dañ la né xamal né le village de Bonouba taxaw na les jeunes de Bonouba taxaw nañ képp ku fi dugg bëgg fi dogal luñ d'accordul tu seras en face ak ñun paré nañ ci loolu bon dafa am guerre politique parce que si on parle Amadou Wade si on parle de Papis Diop loolu seen guerre mais comme li ma wax ça nous concerne pas ñun fiñ taxaw ñun xamul luñu ñu concerné mooy suufu bënn ba may ñu kenn ku fi dugg ku bokul ci bënn bu di fi dogal quoi que ce soit ku ko def di ñu gis di ñu dégg